waaw Bokar ñu ngi lay bëgg wér. Ah, di la ziar di la yëpp. di nuyu mbokk internet yëpp ñu di bëgg di leen ziar wér. di leen baal àq ci koor gi ñu jógee ci koor gi nekk nii. waaw di wax di masawu di jaale sax bee ci cun jàmm Serigne di nga ñaanal fi jëm yàlla gënal fi mu jógee. waaw ak mboolem ñu fi daw làq yi mu jógee yëpp. di leen ñaanal wér. noonu la demee ñu fekk leen nag ngeen nekk ci waajtaay di defar kafe yeeg ndogu yi war fas yéene ko séddale gars waa gis nga ñu ngi ci ndogu yi de ñun chaque année nii lañ koy doxalee 30 jours yëpp nii lañ koy doxalee ñun suñu grand yi nii ñu fi nekkal ñoom ñoo ko doon gérer waaw ba mu jógee ñëw fekk ci leen si di leen waaw yàgg na bi jël këll di maajal wala dara suñu propre moyen la doxee ku jëkk wàcc dañ naan ku jëkk wàcc teg ko bu gaa wàcc ku jëkk wàcc fekk la si noonu lay demee waaw. kafe gi nu muy demee gars yi dañuy ñëw jël ko wala yéen da ngeen di pare dem yóbbu ko di ko séddale. non gars yi ngay jël si gars yi ngay jël si gars yi bi ku nekk génne sa sa capteur ñëw gars yi xelil la bu pein heure bi bu jotee da ngay gis fii gars yi ku nekk daw daw ñëw parce que xam nañ lii ñoom ñoo moom quoi biir la waaw. waaw daam seen ak amateur rek wala daam seen ak supporter rek waa parcelle daal. ñooy ñooy daal takku takk seen digg sax ngoon ñu ñëw. boole du ñu am ak lu ñu am jaayante waa gis nga noonu la demee jaayante di ko nag gars ñun famille fii nii ñun ñëpp famille lañ muy suñu grand yi ñu suñu sama rax yi ñu sama morom yi ñun mën naa ne ñun ñëpp dañoo solidaire boo laalee kenn laal nga kii ñëpp waaw. waaw ziar bi grand bi magal nañ la. waaw ñu ngi lay ziar bu baax sëñ bi ñu ngi ziar a baax waaw na rek. waaw waaw ñu ci wattaay bu baax a baax ñun moom chaque année rek koor gi ni lay demee waaw comme li daam wax rek sànq rek di jaale Cheikh Béthio rek waaw fu mu fu jëm gënal ko fu mu jógee rek quoi yàlla tas ñu ci barkeeram waaw ñun nag amuñu ku dul daam quoi na xam ma dafa doon xale bu ndaw fii ci koñ bi am yar am taalibe xam ma daam mu am taalibe quoi mu am yar daa amutoo kenn problème ñu dëkk fii mosu ñoo gis daam di xuloo maa di xeex nekkul ci yooyu ba muy doon tout tànk ba léegi bëre rek mbapat daf dafa bëre ba jeex bëre tàkk ci yaramam yaa ngi comprendre waaw lii am fii bi passé nag xam nga da nga xam ndogal suñu borom la rek léegi li ci kanam mooy dàq quoi kii champion la kii yàqamtuwuñu carrière am quoi waaw parce que xam nekk ci moom xam nga di moom chaque année nii def togg ndoguli xam bu ñu paree gars yi ñëw jël ko waa koñ bi ñëpp indi cafetière ñu xelil leen ko te suñu ñu ko parce que ñu moom lañ am ndax ñun ñooy tëggal Modou Lo Aziz ko ñëpp xam nañ ñu waaw mais bis ni ki tey nag moom Baye Fall ah ñu ngi ci ginnaaw daam seen barke Serigne Bamba bu jógee ñu jóg bu toogee ñu toog waaw waaw lool moom na ko ñëpp xam ko waaw waaw waaw delloo ziar ba jëwriñ. waaw naka ngeen di ziar bu baax. fekk leen rek ngeen ne ci organisation. waaw gis nga gis nga waaw mu ngi noonu de gis nga rek. waaw lépp ci mbër mi daal waajaay gi nii yaa ma gën a xam am dañ leen di nuyu daal yéen ñi ñëpp rafetlu teewaa gi nii initiative bi yaa ñu daal waaw gars yi kontaan nañ si yéen lool waaw ndax mbër yi bëri nañ fi ngeen tànnal ñu suñu mbër mi waaw ñun moom lañu am mooy suñu champion bi di suñu Modou Lo di suñu Balla Gaye waaw mooy loolu ñu daal mooy ni rafetlu nañ torop nag seen teewaay dinaan leen nag bisimilah waaw dal leen ak jàmm jaajëf waaw. Ah, asalaamaaleykum mbokku Sénégal salaamaaleykum mbokku internet Lutte TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo rek jaar leen di leen jaajëfalaat rek tey ñu ngi waat ak yéen seen émission Ndogu Mbër tey ñu nag ñu seet si benn champion ñu koy wax Dame Sène dañu ko fekk si nag ko ñam fas yéene si moom waxtaan mais duñ def dara rek lu dul nuyu ko bàyyi ko mu nuyoo Dame maa lay nuyu. waa Bokor maa lay fay di nuyu mbokk internet Lutte TV yëpp di nuyu sama waa koñ di nuyu waa parcelle 1 ba 26 di nuyu fu ñu nekk moo xam diaspora bi moo xam ci sous raison bi ñëpp maa leen di bëggee bu wér. wax Dame Sène ak koor ah, koor la Dame Sène est-ce que moo ngi woor. waaw Dame Sène mi ngi woor. woor bi nga am huit ans la parce que mbër ñoo fi dàq ndogu te duñu woor man looloo ma jaaxal. non ñun nag dañuy woor. <laughs> yàlla dogal na bi ñu yem huit lañu commencé woor. parce que rek ñun ay doomu daara lañ moo tax loolu moom force ba force la. ndax daam seen mës na woor wooru gale bu mu fàttale ko mu leer ko ne woor na wooru gale waaw daam seen mës na woor wooru gale képp kuy jàngandu woor di nga ci jaar benn jour di <laughs> mëcc buy di laaxatu hmm. benn coin Pape Diouf moo ma gis cëppal ma waa gale bi <laughs> mais daam seen ak koor geeg entraînement yi parce que mbër ku ne mbër ne entraînement koor gi ak entraînement bi horaire bi day changé wala da di wàññi entraînement yi wala da di arrêté entraînement yi ba koor gi passé. moo koor gi entraînement yi koor gi moom foog mu gi da ngay woor doo mën a entraîné bëccëg gi ngoon maa bi a seet noo def def benn séance ngay entraîné. waaw ñu gis sa combat bi passé yàlla daf la ko xañ sa digganteeg bébé Diouldé la woon. est-ce que depuis loolu tey est-ce que mën nga ma ñëwaatal sax si combat bi Dame Sène tey lan la jàpp ne moo ko xañ ci combat bi avant dara. waaw avant tout damay leen jégaluwaat bu wér ndax bisoo ko gis ni mu demee xam ni taxawu ñoo ñoom taxawu nañ ma fi ma war a taxawoo si bépp côté def nañ li war def lépp muy mobilisation bi muy ambiance muy lépp man tamit entraîné naa la mu war a entraîné def la mu war a def mais tamit ñëw naa ba ci làmba ja keroog man sax xamee ma sama bopp. su ma la waxee dëgg man li ma bëri man sama pare bi mooy ñibbi si oto bi laa naan gars man nan laa bëri xa xaw ma nag nu demee mais làmb la làmb moom bis booy daanu cuune mën nga nekk keroog damaa cuune damaa cuune cuune métti te pourtant li ma def noonu daanu ci dama ko def du ci réussir daan naa ko sa mbër sama troisième combat foog naa noonu laa daanee mag rapide mais nan napp ko jaan boo gis jaan a koy keroog loolu moo ma dal loolu moo la dal est-ce que depuis loolu tey promoteurs ñu may démarché di wax adversaire di wax mais pour l'instant dañoo nekk ci waxtaan noppeeguñu mais incha suñu paree rek incha allah rabi dañ bëriwaat léegi incha allah. am nga yaakaar ne saison bi lay nekk wala déwén. waaw gëm naa ne saison bi dina bëriwaat incha allah si kàttanu yàlla. incha mm. toll nii promoteurs yi ñoo lay proposé ay adversaire wala yow yaa taamu ay adversaire ñoo bëgg a bëri. non ñu may proposé ñu may proposé ku ma lamb booleel ñu war a bëri ñu waxtaan ak staff bi staff bi d'accord man damay jàkkaarloo yow parce que man li ñu leen wax noonu laa rek waaw dañ dañ may diriger dañ ma def bàyyi li ma bàyyi. Hmm. ren ñu gis defet yi dañ takarnaase woon si parcelle naka ngeen ko dundee. waaw métti na trop. Hmm. waaw parce que lamb nag moo demee bu mu baaxoo noonu. Hmm. des day ñëw xaw a neex. des fois ñëw métti mais tamit lu dañ koy ànd ak sant xam ni. amaana lu gën la kenn bëgg ko daanu kenn bëgg ko mais bu amee dañ ci sant yàlla xam ne tamit suñu borom moo yor loolu noonu moo yor ndam comme ko may kenn ki may defit mu góorgóorlu gëm yàlla xam ni yoon jeexul. fi mu toll fi mu toll est-ce que mën nga ma limal ñetti adversaire yoo xamante ni tey boo ko sañoon nga bëreek ñoom mu nekk combat derby combat jàng. lam moom mën naa ne léegi pour l'instant man combat bu muy lay doon. Hmm. ndax xam nga rek parcelle am ci dañoo ci man am ma teg. waaw moo tax man combat bu mënti bëreel même Bébé Diouldé bi nii coow la coow man maa ko mayaat coow su doon bëre keneen tey demee noonu man maa ko mayaat coow maa ko may loxo mayaat ko coow parce que am mbër yoo xam ne ay mbëru coow lañ ku bëre ñoom man nag yàlla damaa dimbali ci côté boobu waaw ku may bëreel ku nekk même bu la gars yi bàyyiwul woon xel dinañ la dinañ la coow du du sama jàmbaar nag loolu may suñu borom la ma ngay sant suñu borom bu baax waaw. parce que bi ngay bëree moom moom dafa fekk mu jóge si defet mer boobu noonu est-ce que loolu yëpp yaa ngi doon sóoraale tamit ci combat bi. waaw loolu yëpp dëgg la bi ma koy jël coow li bëri woon na waroo ko jël war tamit làmb la parce que tamit mënoo entraîné parce que mu ndaw moom bëri la am fi nekk di entraîné jëmale suba doo bëri parce que bi joxee combat bëri woo tamit sa gars yi dañuy bëri di dafa bàyyi loolu donc moo tax ma jël ko tamit dama koy jël dama ni koor gi ñëw na. kii bi koor gi mi ngi ci biir saison bi coupe d'Afrique bi mi ci biir saison bi élection yi mi ngi ci biir saison bi man comme ko demee nii baal ma jël wala daan ko continuer sama yoon bu nga jël man mosuma am xel ñaar yaakaar ne man bu julli mënuma dal mosuma toog di nga xalaat te effectivement ba ba lii nii nii nii gëm-gëm boobu laay demee bu lii nii nii dama naan gisuma gisuma woon loolu quoi man. defar bi noo ko noo ko dundee bi nga ñibbi seen. non métti trop métti trop. ni mu demee la man làmb su ma demee ci làmb wane njàmbaarte wane fulla wane fayda ba daanu su ma jógee sama supporter bu jooy maa ngi wax ak yow ni la carrément làmb la xamal la carrément suñu borom mais keroog mu demee. yaa jum quoi keroog damaa ñëw bëriwuma xewuma man xamuma mooy saanal sama ci litti bi du ma xamee sama bopp amaan kii ndax man la ndax daam seen bu ñu xam daam seen bu ambitieux day ñëw di diriger mu mosuma diriger si làmb sama onze combats yëpp boo xoolee yëpp Dame Sène mooy dirigé mais keroog dama ñëw ñu dirigé ma mu demee noonu mais tamit ci santaat bu baax xam ne may wu sama bopp sama bopp li ku nekk reer ba nga war a reer fa nga war a reeree suñu borom bind ko dans la kuliyaan di ci reer noonu la demee koy sant yàlla bu baax. est-ce que loolu tey loolu tey yaa ngi koy jël comme leçon pour sa combat bii di ñëw nga bàyyi sa xel. loolu leçon la du pour combat de leçon la pour sama carrière leçon la pour sama carrière tamit métti na. sama gars yi ma jege parce que ñoom ñooy génn muy gars yi ñooy génn ñooy dégg ñooy indi. ñoom am di Moustapha. waaw ñoom am di Moustapha muy gars yi ñoom Ndoof a Xalim Sarr mu ñoom Jowee Njaga Idi ñooy génn ak ñoom Isma ñooy génn di gis lu nekk ñu koy dégg ay xës mais di la masawaat ñoom ñoom laay masawaat ndax amaana ñoom xam nañ ma daam seen koo xam defet bi du la métti quoi. koo xam. si bëre quoi si ndaanaan si ndaanaanu bëre si ndaanaanu bërekat koo xam. Hmm. mu ci wàllu sama supporter nekk ci li symbole bi yëpp koo xam daam seen ak keroog ni mu bëree nga xam daam seen mii <laughs> keroog làmb doy waar nag. gars dañ ko dugaloon si butéel ko xamtal ko. ba mu ma loola sax parce que làmb ah. moom <laughs> noonu la baaxoo ku nekk da dem say mbokk ñaan lu ci. Hmm. waaw mais keroog moom wax dëgg yàlla doxul. Hmm. ñu gis ne parcelle tey gars yi dañuy woote wu 100 pour cent. pare keroog soo gis nañ sa open press ñoom Papa Sow Gora Sock gars yëpp ñëw. ñëw tey mais est tey 100 pour cent bi ba yéen a ngi koy dund à 100 pour cent seen biir. waaw 100 pour cent moom parcelle mën naa ni doo affaire écrit sax ñun famille lañ parce que ñun ku ci xewle tey ñu ay teew muy man muy Gora Sogo muy Franc muy Poisson di bëggaat Poisson bu baax Poisson sama commande bi mu desee 3 jours muy waxtaan ak man ma xam ne kii. ñuy waxtaan ak man ci combat bi ma xam ne kii am na benn yëg-yëg ak benn yéene mu am ci combat bi bi ñu subal combat bi guddi gi maa kii ñoo tax Omar ñu toog ci néeg bi waxtaan mu wootaat téléphone nga xam ni di la fàttaliwaat kii tey bu yoroon ndam doo wuti waa di bëggee ñëpp di te Garga sunu mag la di ko félicité ci ndam li am di wax ni sagu parcelle la waaw mbëri yi fi ñàkk yëpp di leen masawu na làmb moog looloo ànd di ñaanal muur suñu borom defal ko ndam parce que ñu jëm combat bu mag di ñaan suñu borom defal ndam mbër parcelle ci am combat bu mel ni Gora Sock franc di ñaanal ndam ñun suñu suñu borom may a bëriwaat saison bi jeexagul de des na. parce que parcelle bokk na si làmb mais dañu mel ni dernier moment yi dañu gis ne parcelle dafa xaw a reculer gaa daaw écurie Dóor moo jël suñu làmb Dóor jël meilleur écurie ëpp ëppale ay victoire si si waaye boo seetloo tey parcelle globale tey dafa xaw a reculer par rapport ak parcelle ni gëdd bi mu amoon ci làmb lu ko waral dëgg la ren parcelle affaire am day tuxu parce que daaw boo xoolee yeneen côté yële daaw fa la gënoon méttee si ñoom daaw boo xoolee parcelle meilleure révélation yi fi lañ jógee parce que Ramadan daaw meilleure révélation yi la man mii ci meilleure révélation yi la bokkoon waaw Ramadan di ko nuyuwaat di ko bégwaat bu wér sama waay la sama xarit la kooku fakamaan la waaw kooku sama waay la di ko bég bu sama combat bi jàpp na ci baax ram maa lay bégee ak sa gars yi nekkal foofu yëpp ñëpp sil nag gars yi ngi lay xaar ñëpp sil waaw affaire am day tuxu rek des fois mu ni nekk Pikine des fois mu nekk parcelle des fois mu nekk Guédiawaye nag xaw na commencement bi xaw na méttee parcelle quoi mais dañuy ñaan mujjanteel bi yàlla daax commencement bi naka ngeen koy waajalee yéen waa parcelle muy mbër yeeg amateur yi que bi moom mooy seen sanitaire Modou Lo moom si defet la jóge di bëre koo xamante ni tey moo yor de des arènes yoral ko revanche combat boobu noonu waaw moo daanu na ma pour l'instant nii nii nii Modou koo conseil da nga koy pour man nii Modou koo conseil nga koy tamit du gan ci làmb naan la ci làmb waaw di ko ñaanal suñu borom defal ko ndam parce que moom xam na bis bu mu jëm xam na li muy laaj xam na li koy jox di ka ñaanal suñu borom suturaal ko may ko ci ndam. lan ngay tëjee rek si gàttal. waaw avant tout may remercier sama gars yi yi may jàppale mm. waaw di nuyu jiital nuyoo bi mm. ci Mame Ngor kooku mën naa ni dootuma gërëm dama koy ñaanal parce que kooku mooy daam seen waaw père Manga di ko gërëm bu baax damay jàppale yi fépp ci yëpp côté di gërëm sama gars parce que man yàlla boole ma ay politiciens man yàlla ay ay la ma booleel waaw yàlla boole ma ay ay politiciens ay ay footballeurs booleel ay sportifs la booleel di leen wér sama international yi ku ci mel ne Pape Abib Gueye kooku sama rax la waaw Daouda Mbow Moussa Mbow di leen wér gis nañ niñ may taxawoo ak seen sœur Fatou Zahra Mbow di ko ñaanal mooy madame Kouyaté di ko nuyu bu baax waa di nuyu Jilani Fall international Jilani Fall di ko bëgg baax Ali Alim Fall di ko bëgg war Diadja France Pape Gueye di ko bëggee ndongo Daara Xarim njaay Pape Mor Dramé 26 Diarra 26 Pape Ayib Gueye tamit di ko bëgg waat wér a wér Mour Yàpp waaw di ko bëggee Sidi Diatta moom tamit Mour Yàpp moom moo joxe yàpp Yàpp moom maam góor ñaar ñooy jàpp ci yéen ndawal bu baax di gërëm waa gàlle bi yëpp waaw waa gàlle bi den bëgg wër mère Fala su ma amee combat du nelaw def dara di bëggee sama grand bi caat Pamakuro di ko bëgg wër moo waa kër gi yëpp xar yi Ami njaay gis na ni sunu togg yi di jaale suñ benn yaay booy bu wàññeeku muy tantay fat bi nu sexoo waaw di ko jaale di ko jaale maam maam fat bi nu di ko jaale waa kër gi sexoo sexoo yëpp di leen ko jaale waaw maam góor di ko gërëmaat bu baax xaarim Sarr sonn ci man Isma Omar Ndoof Idi Maane Pamba Kouromi xëch am di am di Moustapha kooku du ma gërëm dama koy ñaanal ku baax la. am di moom suñu moom ndax. jikkoom le nouveau waaw kooku waaw le nouveau marié di ko ñaanal suñu borom nekk njaboot barkeel moom soxnaam si. di nuyu sama gars yi ñoom Ndoof Dame États-Unis maa ngi ciy bëgg wér gaa yëpp maa ngi di bëggee parcelle di leen waxaat incha encore une fois nañ ma xaar champion dëgg fa la nga xamee ci retouram li nga xamee sama retour dina yéeme. le retour de Dame Sène dans l'arène. billaahi wallaahi. incha allah di gërëm sama mbokk gànjool gànjool yi. li ko dalee Paal Raw Ngingi Cele Ndoos Njaageen Mbembe Sarr Mbembe Fall Mbembe Diagne Xateet Bijjëm Junga Tëmb. xëtali bàccaas njuus bàyyiwuma kenn xel kom fépp kuy sa mbokk gañu maa ngi lay sant di la gërëm gis naa taxawaay bi waa li gërëm sa mbokk séeréer yi li ko daree Falia Jonwaar Ñoojoor Jibir Samba Dia Caalaan Basaar Basul di leen bëgg wér a wér waa Samba Dia di a la waaw tur bi naka la Omar la. Seydina Omar ñu ngi lay ziar bu wër. di la delloo seen champion bi lañ seet si tam seen loo ñu mën a wax si moom. waaw gis nga daam seen ah, avant tout dañuy sant yàlla mm-hmm. di julli si yonent bi mm-hmm. di nuyu ñëpp di baalu ñëpp àq si koor gi mm-hmm. di leen wax baal nañ leen dëgg yàlla daam suñu raq la suñu lépp la dëgg yàlla yoon la tamit ngeen ñëw fii ñu jël micro wax donte mënuñu wax sax mais nañ si sànni ay kàddu tuuti dafa nekk nit koo xamante ne nit ku baax la ku am yéeg-yéeg ci doomu aadama ku fonk doomu aadama jox ñëpp cër waaw ñun dañ koy ñaanal lekk ndax dañ naan euh, ñun suñu melentaan moo ñu gën a laadum jàmbur wax ñun bu ñu bu ñuy supporter mbër carrément ñun daam seen lañu am dañ koy ñaanal xam nga si defet gi mu jugee yàlla na defet doon defet goo xamante ne fi lay yem quoi di si kanamam mu dàq li mu romb lépp ci barke alxuraan loolu lañ koy ñaanal dëgg yàlla ngeen a waajoon bés mu amoon nu mu demee naka ngeen di préparé waatee rek pour yeneen bés yi ñëw waaw moom wax na ko sànq champion dëgg si retouram lañ koy xamee wax na ko si biir wax wax dëgg yàlla loolu la ñuy xaar si moom te loolu la ñuy séntu si moom te ñun tamit duñ topp ragal du ragal te duñ topp ragal. xam nañ suñ ko bu baax. depuis bi muy booy ba tey ñoo nekk di ko bu baax ñu retour li koy xaar xam na ko. parcelle dañoo yaakaar si moom wax na ko. parcelle yëpp dañoo am yaakaar si moom dañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax. te moom it du ngaaka xam na li topp si ginnaawam. waaw na loo xamante ne moom xam na ko bu baax. jaajëf waaw loolu daal dañ koy ñaanal daal li si kanamam daal. Hmm. yàlla na dàq lii mu romb. defet moom mënut a ñàkk ci mbër. Hmm. mbër yëpp ay daanu ñëpp mais dañ koy ñaanal suñu borom. mu doon defet boo xamante ne mooy defet bu mujj si defetam li ci kanamam yëpp nekk ay ndam ci barke alxuraan. jaaraama koy ñaar jaajëf. Moustapha lañ koy wax day yàggul takk soxna nag xam naa ne instant yi moom moom mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi wàcc bi am di ziar naa la. delloo ziar Bokar. yaa ngi dem géej. waaw gars yi ñu ngi may yóbbu ma fi abu sew bi. <laughs> sélectionné ah. <laughs> non dama affaire yu bëri yooyu boobu doxuma si quoi ah. non non. mais yaa ngi yaa ngi yaa ngi andi ah, daal. may daw rek génnee suukar bi. Eh. <laughs> mais ñoo ngi lay ziar. maa lay delloo jaar bookar bu wér. am di Moustapha bu daam seen am di Moustapha bu parcelle mburu parcelle bu ñuy bëri du am jàmm di werante groupe whatsapp yi am di Moustapha am di Moustapha parcelle ren moom xaw ngeen dee xaw ren moom moom moo xam naa dogal si naka ngeen ko dundee. waaw dañ koy jëlee xel mu sell rek parce nag daam wax na ko sànq quoi boo xoolee trophée meilleur espoir mu ngi parcelle jugee ko fi trophée meilleur écurie mu ngi parcelle jugee ko fi ndax ñoo ko jël daaw ñoo ko jël daaw jékk te nag wax dëgg neex yàlla buy neex chaque jour bu yàggee ñu xoraat suñu bopp quoi affaire day neex tey soo mu naqadi ndax ñun ay jaam kese lañ suñu borom mooy dogal xam nga te booy fi daanu yëpp wax dëgg du seen yaafuus lu seen ñàkk fayda ku si nekk bu simee ko état dañuy xam ne kii indi na état ndam nag dafa nekk loo xam ne mbiru suñu borom la bu ñu ko mayee dañuy jël sant bu ñu ko xañee tamit aussi ñu jël sant waaw dañuy ñaan yàlla nag affaire ndax tamit camp bi nga dégg naan ay ñoo fi nekk nekkuñ fekk affaire yooyu boo xoolee début saison bi métti woon na si ñoom de. métti woon na trop bëree woon nañu arène nationale ay combat combat perte ko. ñun nag ñëw nañ début bu métti trop mais fin bi gis nañ am na ay ndam yu ñëw ndax Garga Mbossé bëri na daan ñu koy félicité Belenda bëri na daan ñu ngi koy félicité xam nga ñu bëri bëri nañ fi daan ñëpp ñu leen di félicité ñetti victoire yu daal ngeen am des na hmm. des na booy bi dëkk intercept boobu non pas Kélémazo daan na même des na beneen booy bi dëkk ah, na booy bi dëkk intersect koñu franc bi. Hmm. xam nga booy bi daan jour samedi bi passé. Hmm. jour combat arafas bi. Hmm. Ibra Ngaabu aw booy tamit daan ñi fi daan bari nañ quoi mais c'est-à-dire ñun parcelle ñoo weex dunq si làmb ñun bu ñu ñàkkee rek gars yi dañ koy gis mais bu ñu gañee gars yi dañuy wax mais affaire yi moom premier mi-temps la ak deuxième mi-temps premier bi neexul dañuy ñaan yàlla deuxième mi-temps bi rek remontada bi ay góor ak franc Modou Lo yi aussi am combat yàlla dafa leen ndam ñoom ñëpp ah waaw wax dëgg jaajëf jaajëfati yaay la fay nañ la mon fils. ñu seet si woon seen doom rek seen jarbaat seen champion bi daam seen. waaw nekk xale nekk si làmb ji. Lutte TV seet si woon doon defak moom Ndongo Mbeur eh, loo ñu mën a wax si daam rek. daam xale bu baax la. ne ko xale bu baax la xam naa ne lu mu so lu mu yóotu rek yàlla mën na def mu jot ko. Mm-hmm. ñi muy àndal ñoom it sama ñoom ñëpp samay doom lañu xale yu baax lañu. Mm-hmm. jox nañu mag cër seen kii sax. wax nañ leen cër ñu ngi ñaan nag yàlla mi nga xam ne lu am moom la yàlla na koy defal ay ndam ndami ndamay ndam waaw yàlla na ko yàlla defal aussi écurie waa parcelle yëpp ak xale yëpp parce que ñoom ñëpp a baax ñoom ñëpp a ñu bëgg waaw. naka ngeen vraiment yàlla defal jàmm daal. naka ngeen di dundee ak moom ci kër gi parce que mbër moom xam nañ ne neexul nekkal naka ngeen di dundee moom ci kër gi. kii moom daa moom amul benn problème vraiment. Mm-hmm. parce que dafa ñëw rek considéré ma yaayam ma considéré ko doom. Mm-hmm. ni ma nekkee samay doom ci biir kër gi rek laa nekkee moom ci kër gi parce que moom itam doom la waaw. loo koy ñaaxee rek ci carrière en tant que mbër. waa mu góor góorlu rek. parce que keroog bi mu daanoo dafa ñëw di jooy ma ne ko mais yow ñi fi nekk champion tey ñaata yoon lañ leen daan mais yow trois xaw ma deux défaites nga am. yàlla mën naa dem a dem ba nga nekk nag euh, roi des arènes te moom laa ko ñaanal. yàlla na ko yàlla def roi des arènes te muy njiglaayam waaw. loolu rek laay jërëjëf yaa ñu ngi lay fay. loo nekk si daam yow. man maa nekkoon président fan club am. Hmm. mais yàlla dafa def néewtuma fi nag damay tukki damay dem ni ñëw moo tax waaw. Hmm. loo mën a wax moom rek si gàttal rek. li ma mën a wax ci moom bëri na buñ ko doon bind. daanaka da big bu jeex na ngay jël beneen indi. ndax ginnaaw yàlla Omar Diallo moo tax ñu xamante waaye yàlla def depuis booboog léegi mu doon koo xamante ni fecciwul kóllëre benn yoon ndax li ñuy wax ci mbër naan mbër day changé. man gisuma ko malgré que nekk naa fi new ma fi mais combat bu mu mën a jël ni ma fi nekkee ni may mel ci combat bi ma fi nekkul it noonu la may foofu la may teg ci combat bi may nuyu gars yi d'abord di nuyu waa fans club bi yëpp mafia Dame Sène bi ñëpp di wax ci turu président Isma Gueye dafa am décès euh, maaw ñu ngi koy jaale maaw fay bu baax a baax waaw di jaale it euh, Serigne Cheikh Béthio Thioune jaam Serigne Saliou maa ngi siyaar waa mafia bu sew bi ñëpp waaw ñu ngi bëggee gars yi daal waaw. weer. yaay ami bu daam seen. waa daam yaay ami bu daam seen. yaay ami bu daam seen. wala miyaa bu daam seen. wala miyaa bu daam seen. voilà daam seen naka ngeen dëkkeek moom fii si ah, na wax yàlla jàmm rek lañ dëkkeek moom. jàmm rek lañ dëkkeek moom. waaw mu nekk mbër bu yaru. mbër bu baax en dehors sax bu nekkulee mbër sax dafa nit bu yaru la. xam ñëpp respecté ñëpp ñun surtout jigéen ñi ñun ñi daf ñu respecté wax dëgg yàlla teg ñu fu ñu war a teg ñuy ànd ak moom yàgg na ba bu ñu commencé di ànd ak moom ba tey mosul changé benn jikko rek lañ ko xamee comme ni mu mel nii rek loolu lañ xam ci moom. loo koy rek wala loo koy conseillé ci carrière am li ma mu mel ni mu mel rek bañ a soppeeku incha allah. Hmm. yàlla dina indi ay ndami ndam ba mu nekk roi des arènes incha allah. lan nga gis ne loolu la war a yokk. lu mu war a yokk. Hmm. na yokk doole rek incha allah day mm. baax. Mm. loolu da la war a yokk. di wuyu appel yu bëri. guddi appel noo non. dëgg yàlla wala whatsapp bi tuuti rek. Ah. mais nekkul ci xale yi wax dëgg yàlla. nekkul ci xale yi non non. waaw kon jaajëf. waaw kay jàmm xéewal.